jërë ngeen jëf euh, mbokk internet yi ñu ñuy topp su sunu seen bi di Live Dakar 221 wala ñu abonné partage like vidéo yi baax a baax kookee di premier ministre ba di Ousmane Sonko daal di joxe ndigal rek si xar yi doy ak li nga xamante ne seen rek moo di eh, prix yi yamambaay ba ñëpp rek askan wi ak way góorgóorlu yi rek daal di mën a am li nga xamante ne si moo di xarum tabaski ba rek tabaski gi daal di mën a jàll si jàmm daal di jaar yoon loole nag moo doon ak bëgg-bëggam moom kookee di président Ousmane Sonko kon nag loole askan wi ña ngi koy bàyyi xel bu baax tabaski gi. xar yu doy ak li nga xamante ne si ne rek moo di euh, prix yu yamamaay ba xamante ne si ne rek askan wi ñëpp rek ñoo koy mën a sentir ñëpp ñoo koy mën a yëg ba daate rek euh, amu ko xar daate rek jàll si tabaski gi waaye nag la see ñuul jëm sa wàllu ko dund googee rek mu doon soble sak pomme de terre loolet ak wàññi teef askan wi da nga kasee xaar ndaxte nag kon mun taamu xar te doo am soble te doo am pomme de terre bu doy kon nag loolet ña nga say réew mi wax na rek ñu daal di wàññi la nga xamante ne si de moo jëm so loolee ba tax na rek bu daal di amee askan wi danañ ko dund dund gu neex tabaski gu neex te jàll si eh, jàmm mu doon mbir yoo xamante ne si rek gouvernement bi jamono jii rek ña ngi say liggéey seen kentu lay kàttan xool rek naka lay def ba dund gi daal di eh, mën a wàññeeku rek ñëpp daal koy ay prix normal waaye nag loole dafa mën na la sa Ousmane Sonko yëkkati moo de rek eh, jamono ji nag dund gi mënut a wàññeekoo daar daar ndaxte nag ñi jamono ji Sénégal yi la ñuy dundee daanaka rek des koy jéggaani si yeneen réew pour mu wàññeeku nag dina lu doon jafe lool waaye nag pour mu wàññeeku rek il faut ñuy bayal suñu bopp di dundee ndaxt rek ñu maanaam autonomie boobaa rek prix yi daal di mën a wàññi